lu ñu jóge mukk ci ay problème muy deux choses damay wax ne tout ce qui vaut la peine d'être fait mérite d'être très bien fait mm-hmm. lépp loo jàpp ne yow Benoît mm-hmm. da nga ko war a def mm-hmm. ngalawaay Diop defee ko na mu gëne beneen bii di tout métier qui s'accomplit sans la conscience devient un tout petit métier ñaar yooyu buñ ko lijjantiwul fii en Afrique dinañu toog di gis-gis pendant 60 ans di ci wax du mujj fenn. et li tax ma wax loolu mooy Benoît comment tu peux imaginer dans ce pays édifice yi fi tubaab yi bàyyi woon moom la ñuy tiitaroo ba léegi ñun ñoo def lu gën li fi tubaab bi defoon le palais affaires étrangères assemblée nationale euh, euh, comment dirais-je euh, ministre euh, comment dire chambre de commerce et j'en passe yooyu la ñuy ñun. leneen lu ñu fi joxante suñu biir liggéeyante suñu biir man ma soxla ko jox Benoît def kii waa jël tabax nàngam nangam boo fay dugg sax non tunnel bii nekk Soumbédioune mais ñu ñu bëri bu ñu fay dugg day tari dañuy tari dañuy tari ay saar balaa nga fay romb. Hmm. boo voyagé daw tunnel par 4 kilomètres 5 kilomètres yoo xam ne do non quand même xam nga li may wax. Ah pour pour te dire bu tawee kenn dafa dugg ba fii ma toog di wax ak yow ndox géej baa ngay rogalaat ci rogalaat. Hmm. maa la wax li ba léegi ndoxu géej baa ngi fay rawalaat bu la fa embouteillage fekkee nag eh, da ngay da non c'est vrai man dama damay damay tiitaa man su ma nee carax foofu noonu ba embouteillage fekk ma fa hmm. mu leer ma naa fa def benn trente minutes wala quarante cinq minutes hmm. ah non yàlla rek damay damay tudd yàlla de boobu moo fay gën de kon fi mu ne mën nan faa rey nit te kenn du ko yëg non pas rey nit c'est trop dire hmm. mais mais maanaam sa xel moorul dal moorul dal ci la moorul dal ci ci infrastructure bi infrastructure bi moorul dal sa xel loo xam ne ñun ñoo ko liggéey di ko tiitaroo ñun fii li fi tubaab yi bàyyi woon moom la ñuy continuer tiitaroo ba léegi boo demee Gorée il y a plus de deux cents ans bâtiment yaa ngi fa ne gis sax fissure loolu mooy dëgg moo donc moom la mooy li ma wax damay dem ba finalement j'ai comme l'impression que le sérieux est devenu un luxe pour l'Africain noir et je dis je dis presse bien et mots le un le le la le sérieux est devenu un luxe pour nous mm. période bii ñu toll nii mm. lan ngay dégg investiture investiture xuloo guddi xuloo bëccëg depuis le Sénégal est un pays qui est en campagne électorale permanente depuis depuis vingt ans le pays est en campagne électorale permanente on ne travaille pas comment voulez-vous que ce pays-là sorte parce que li ñuy jooy fii accueilloo euh, malato euh, hôpitaux lépp mooy li nga xam ne moo mots yi nga xam ne ñun moom moo nekk suñu réew loolu mooy loolu mooy dëgg gi benn sànq nga ubbi brèche boo xam ne sax ci laa naroon commencé mu nekk une situation ki ma ci à su ma juumee ñu rectifier ma yaa ngi wax sànq il faut que la jeune sénégalaise se réveille parce que effectivement ñoom ñooy avenir u Sénégal ñoom ñooy avenir Afrique c'est ça la vérité il faut que ñu bàyyi façon bi nga xam ne moom la ñuy dundee avec les politiciens ndax dëkk boo xam ne depuis deux mille nag le pays est en campagne électorale permanente et sax li ñuy campagne sax suñ doon gis ñun les bénéfice mu neex mais du gisuñu ko Kër Masaar gee ma dëkk mënuma la wax ñaata der ñoo fa nekk ci tali bi benn du ci tàkk guddi gi tu as l'impression ko ci cimetière nga nekk daan nañ ñu ñaxee sax ñu njëkk ña au temps du parti socialiste bu ñu mësaan jub ay élections ni ñu taal lamp yëpp léegi sax talatuñ ko sax far mais cest ñun africain su ñu amee soleil douze mois sur douze te mënuñu ñun am capacité intellectuelle intelligence su utiliser des des des des lampadaires solaires ba kenn dootul jàmbat kooku il y a problème mentalement intelligent mentalement parlant te lu tubaab wax nit ku ñuul ñu mer non c'est ça la vérité pour wax sànq li ngay wax ci la jeunesse Benoît am na lu gën a doy waar loo xam ne maa ngi koy constaté mm-hmm. mu jàmm cee à cœur maa ngi ciy waxtaan suma xaree yi ma nekkaloon di ci waxtaan dinañ ba xam li may wax muy l'histoire des nawetaan dañuy wax ne ONCAV mhm. organisation organisme national pour la coordination des activités de vacances loolu la ñu wax de nawetaan yaa ngi doog commencé barki dem ba école ubbee mais dans quel pays nous sommes où est la c'est vrai où est la responsabilité du ministre ministère de la jeunesse où est le du ministre des sports où est la respons où est la responsabilité même. du président yaa ngi dem di seetaani ma chance moom mi ngi soog a commencé. maa ngi ñëw. mi ngi soog a commencé maa ngi ñëw ñi ngi ñi ngi dem di football ndax ñi ngi dem di seetaani. équipe boo jël équipe boo jël am na au moins 4 5 6 ou 7 ñoo xam ne ni ñi ngi soit terminal wala ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ngi def troisième. dëgg la personne n'en parle dans ce pays alors que ñi ngi jooy ni niveau élèves yi wàccee. parce que ñun ba jamono ba ñuy fubal nawetaan dañ ko daan commencé mois de juin. Mhm. école doon commencé tëj. Mhm. ñu def ko juin. Mhm. def ko juillet. def def def juin def juillet def août def septembre mu jeex. aujourd'hui il n'y a pas dans ce pays là une gravité bu raw école ubbi barki Dembo Ndiaye le 15 nawetaan di doo ko commencé. léegi match yi la ñi ngi ci ñi ngi ci phase de poule boo paree phase de poule yi da ngay dem ci phase euh, euh, euh, départementale soo paree départementale dem ci phase régionale ça veut dire que fii ak cinq mois mhm. laa leen li ñu waroon jàng xale yaa ngi diggante dem entraînement parce que nawetaan doo ko fubal te entraîné woo mhm. waaw yow dix-sept heures dix-huit yaa ngi entraîné mhm. guddi gi yaa bëccëg yeneen équipe yi ñu ngi fubal wala ngeen am nocturne wala semi nocturne ñii bàbbeeku nañ def club de supporter dem supporter ji bàyyi nañ seen ay kaye dem parce que si équipe la ñu bokk dañuy joué ji et eh, xam loolu lu ma ci gën a metti. c'est pas normal. c'est pas normal. c'est pas normal. personne n'en parle dans ce pays. où eh, c'est-à-dire aujourd'hui on coordonne quel acte de vacances on coordonne puisqu'on est en année pleine année scolaire la ñuy coordonner organisation nationale pour la coordina organisme national pour la coordination des activités de vacances muy ONCAV nga dem Dakar mu ne ODCAV départemental nga dem nga muy Dakar lan la ñuy coordonner école yi ubbi barki dem boo njaay stade yaa ngi ba pare sans compter nag ñàkk njëriñ gi ci nekk mooy rayante bi guddeeg bëccëg mm-hmm. rayante bi guddeeg bëccëg ñi ciy fubal amuñu ci dara ndax ñun fubal nañ nawetaan ba bàyyi amuñu musuñu am prime mm-hmm. amuñu ko club bi am antanuñ ko mm-hmm. club yi nga xam ne ñooy fubal ñoom bu ñu paree ci prime de match passé wul vingt cinq trente mille francs pour l'association personne n'y gagne à part les personnes n'est-ce pas qui qui de ce mouvement là avec la complicité effectivement ñu ne ñun xale yi dañu war a jàng xale yi dañu war seen niveau dafa war a jóg et ainsi de suite ainsi de suite te soo fa demee malheureusement ñi nga xam ne ñoo dëkk dans les quartiers faible muy la banlieue fa la gën a ullee ñaayee doo dégg mu ASC point E ASC Fann résidence ASC non ñoo ñu koy jàng seeni doom a ngi ci école yi gën a côté di jàng donc loolu mu jaaxal ma ci dëkk boo xam ne dañuy wax ne dañu bëgg xale yi jàng ñu koy nawetaan a ngi on, on coordonne quelle activité de vacances non il faut qu'on soit sérieux donc loolu moom vraiment ça me tenait à cœur pour ma mën ko wax maintenant. na ñëw ci accueil bi ak rapport heurté yi. c'est voilà nga ñëw ci euh, accueil ak rapport heurté. Mhm. moom laa commencé sànq. Mhm. mais Benoît le problème que nous avons avec euh, au niveau des hôpitaux par exemple. Mhm. c'est même pas affaire ay médecin wala affaire yooyu noonu. c'est la personne bi romb euh, yor yor yor dara nga xam ne kii dafa néew doole. oto dérapé dal ci kawam. nga gàddu dugal ci biir hôpital ñooy la non duñ ko laal. Mhm. duñ ko laal cest à loolu c'est même pas de la responsabilité ñi nekk ci hôpital bi c'est-à-dire c'est système de sanitaire boo xam ne ca ca kaw la jógee moo baaxul ndax quelque que soit alpha war nañ la mën a toppatoo yow on sauve ta vie d'abord parce que ki tëdd tey xëy na sax ndiggam président de la république mi ngi ci. xëy na kii kii nii mi ngi jur koo xam ne ëllëg mooy génn Sénégal ci guuta bu mu nekk mooy def la fierté du du peuple sénégalais parce que c'est-à-dire des réflexions beaucoup plus profondes te bañ a gis nit ki tëdd nii mhm. que loolu mooy problème bi. boo xam ne bu ñu demee ba ne ku fi feebar yaa ngi ci loxo yàlla y a na fi mais loolu mooy danger yàgg na fi exactement Benoît c'est c'est ah que 60 ans après les indépendances. Hmm? mu mënaluñ ñun suñu bopp dara hmm? mënaluñ suñu bopp dara ñun on se rappelle yàggul dara il y a trois ans quatre ans cinq ans je crois xaw ne